ñëw ci bi. dina mhm. nekk la stratégie de Sonko et choix sur Habib Sy. Mhm. de Habib Sy mhm. donc choix bi nga xam ne moom la mbokki Pastefien yi. daal di def ci choix bi nga xam ne moom lañ def ci euh, tànn gi ñu tànn. Habib Sy moom dina ci gën a indi lu gën a yaatu. Euh, te ku habilité la euh, pour wax ci. buñu ci jógee ci tomb 4 bi tam. day dina ñëw wax ci la responsabilité de lélecteur mu nekk ay tomb yu am am solo yoo xam ne nii comme ni nga ko présenter léegi rek c'est un jeune boo xam xam ne ku ñu mhm. war a déglu la moom mhm. Ousmane Diagne mhm. euh, koo xam ne ni dañ ko war a bàyyi xel ci Sénégal parce que yàgg na mën ay combat loolu juróoloon na ko leneen ak leneen te ku ne ku ne xam na fi mu nekk nii ci lu mu nekk de toute façon euh, euh, nit ki doo ko gën a xam boppam bu duggu see dinañ yaatal insha allahu rabbi daal di waxtaane tomb yi nga xam ne moom la ñu la ñu fi wax waaye tam sans plus tarder comme ni nga ko waxee rek Aliou Dieng mu nekk nag euh, euh, mbetteel euh, goo xam ne nii moom la ñu am ni ki bésub tey mhm. parce que boo may laaj ci Anta Babacar Ngom dinaa sawar lool pour wax ci mhm. parce que bala may ñëw ci Anta Babacar Ngom damay wiiraas rek jaar ci ki nga xam ne moom mooy sunu yaay mhm. di Mimi Touré mi nga xam ne gis nañ ko li ki léegi nii muy def conférence de presse boo xam ne nii janook taskot xibaar yi muy wane naqaram muy wane njàqare waaye tam di wane li nga xam ne nii rek moom mooy mbetteel gi mu am ci li nga xam ne moom moo di parrainage Euh, mu am nag ay information yoo xam ne nii moom tam daal na ko fay joxe. Euh, ci kaw li nga xam ne nii euh, moom moo di parrainage ak na mu tëddee. Mhm. ak recalé gi ñu ko recalé. Mhm. mu mel ni démb rek am na ci benn plateau bu ma toog doon ko wax. Mhm. ne c'est pas du tout normal su fekkoonte ne parrainage yi. lu jaar yoon la. du ñu nekk tey ji aveniru Sénégal mhm. ñu tëral ko ci li mhm. nga xam ne ni tey jii moom mooy euh, ci ay euh, euh, tirage au sort mhm. ndax li ñu fi gis boobu ba tey jii bokk na ci tirage au sort boo xam ne moom lañ doon def boobu ba tey di ci tabb ay kandidaa ki yee jël p ki yee jël trois dama ne nañu seet rek suñu aqulaay taalaa la ñuy waxee kii di Boubacar Camara su nekkuloon numéro un amaana tey jii ay doublon dina ko sonal comme ni mu sonalee keneen ak keneen ak keneen donc imaginer ki jëloon tey jii quatrième cinquième nga jàll ba pare Euh, ci parrainage yi ñu la la da ngaa am euh, euh, quarante mille doublons mhm. externe mhm. yow tey jii nga mën a am chance une semaine mhm. nga daw mottali ko parce que quatrième nga jëloo ci rang bi wala deuxième wala premier ñu ne la sa doublon yooyu kat am nga une semaine pour régulariser nga gis ki jël quatre-vingt-treizième moom ci dernier jour yi la ñëw moom bi mu ñëwee ci dernier jour yi ñu ne ko am nga quatre mille pour régulariser quatre mille doublons ex externe pour régulariser kooku tam am deux jours képp-képp pour daw wëriwaat quatre mille et quelques yooyu mhm. day mel ni comme si euh, am na benn njàqare buñ ci am mhm. am na ci loo xam ne nii xëy na euh, dina euh, nekk lu baax ci ñi jiitu ci course bi ci kanam. Euh, ñi ci demee euh, parenage populaire ñëpp. Mhm. te gis nañu que ñi demee parrainage euh, élu yi. Mhm. ñoom rek daanaka ñoom ñooy gën a nekk ñi gën a fës ñi nga xam ne. Mhm. kenn du leen ñëw te dañuy ñëw rek bàyyi leen ñu jàll. parce que parrainage élu yi dafa neex. dafa neex a euh, xool daal donc parrainage euh, euh, populaire bi mhm. nekk loo xam ne nii lu doy waar la loo xam ne nii war ñu ko woon nattee mhm. pour indi ñi nga xam ne tey jii ñoom ñooy candidat yi mhm. pour ñu dem ci ay élection présidentielle lu jaarul yoon la ci wàllu parrainage bi ak ni ñu ko waxee lu jéggi dayo la tey dama naan bala may ñëw ba tey ci Anta Babacar Ngom suñu yaay Mimi Touré wax na ko léegi nee na fichier bi moom loolu la wax ci ci conférence de bi nee na bi ça date depuis mille neuf ça veut dire que élection yooyu ba tey jii législative wala wala wala wala locale yi mhm. fichier boobu ñu yoroon ba tey jii moom la ñu continuer mhm. euh, di yor fichier boobu mhm. euh, bu ko waxee dangay ngay euh, mën a kat Euh, calculer li mu wax wala sax nga jox gëdd li mu wax. Mhm. parce que boo gisee ay candidats yoo xam ne dañu ne la dañoo dem. Mhm. yóbbu seen clé USB boo xam ne nii waa DGE. Mhm. gi nga xam ne ñoom ñoo yeyoo pour jox leen ko ñoom ñoo leen ko jox. ñu ñëw indi ko ñu ne leen carrément yaa des euh, électeurs yoo xam ne ñoom dañu ko yor ci seen ay fichier te ñooñu nekk ñu ci biir fichier bi nga xam ne moom moo nekk ca conseil constitutionnel. day niru leneen. ñoo xam ne nii yow tey am nañu carte d'identité xam nañu ne dañoo war a voter mm-hmm. defal nañ leen ay bureau de vote nee nañ leen yéen a ngi ci liste yi mm-hmm. te nekkuñu ci biir fichier bi mm-hmm. loolu dafay nekk loo xam ne nii CA évoqué waaw lu ñu war a waxtaane la donc ñu daal di ñëw nag ci comme ni ko euh, Mimi Touré waxee Mimi Touré su ko waxee mën nañoo jàpp ne dëgg la dans 2017 googu muy wax mi ngi woon tey jii ci mouvance président présidentielle bi te Mimi Touré ma ne la ba mu fa génnee ak léegi mm-hmm. amaatul dara lu fa lu fa yees wala lu fa mën a yees mm-hmm. loo xam ne mi Touré mënu koo xam mm-hmm. man sax dem naa ba naan di ko tooñ moom sunu yaay sunu bàjjan ne sàcc bu ñu sàccaat la rek parce que boo dee xool couleur ba benn la woon marron beige la woon ma koy jéggal bu baax a baax mais il faut tam ngay wax dëgg bi euh, euh, euh, bu fekkente ne tamit mën nañ koo nangul génnam ci Benno Bokk Yaakaar parce que la mu def moom mooy ba Badé troisième candidature bu président ab Macky Sall. Mhm. mu jural ko yeneen ak yeneen yoo xam ne yëgu ko woon ci biir euh, euh, benn bokk yaakaar. Mhm. tax tay mu beddeeku bor berdaaram. Mhm. kooku tey jii ak fonction yi mu occupé euh, fii ci njiit ci gouvernement bi. ak nekkoon ak premier ministre nekk fi ministre de la justice ak yeneen ak yeneen. kooku tey jii dañ ko doon séntu en tant que jigéen en tant que yaay. en tant que koo xam ne xam na Sénégal mu bokkoon ci les élections pour jëmmal élections yi ci àdduna wërngal këpp fépp waaye itam ñu gën a wane ne suñu démocratie beddiwul kenn mhm. ñëppay ñëw te it parrainage yi nga xam ne nii mhm. nekk na loo xam ne ni euh, euh, euh, ni ñu ko war a waxee rek. Mhm. dafay nekk lu doy mhm. ñu daal di ci jaaree nag ci mhm. parrainage yooyu daal di ci wane dëgg benn yoon ak fulla mais soo gisee le cas de Anta Babacar Ngom moo tax ma indi la le cas de Mimi Touré parce que nekkatul ci mouvance présidentielle bi. bu ci nekkoon tey jii mu fekk ne moom mooy deuxième ñu naan moom la xëy na beneen sànni tàccu bu mouvance présidentielle bi la. ndax bu ñu nee Amadou Ba du seen du seen candidat exactement dañu ko mbubboon nii rek mhm. eh, am na ñeneen ñu ñu ruux ci suuf bu fekkoon Mimi Touré na ci tey jii xam nga ne kenn du ko téye ci ay affaire parrainage ak yeneen yu ni mel mhm. te xam nga ne Mimi Touré eh, nekk na aussi koo xam ne ku mhm. miin fichier bi la nekk na koo xam ne ku miin terrain bi la de même que Aly Ngouille njaay loo bañ bañ eh, ab golo nangul ko mën a dawam wala mën a yéegam ndaxte Aly Ngouille Ndiaye en tant que ex ministre euh, wala ancien ministre de l' intérieur. Mhm. ku miin fichier bi la. ku ko téye ci loxoom la kooku soo demee tey jii ba ne ko da koy téye ci ay parrainage yëpp nekkoon ministre de l' intérieur ak yooyu sa xel da ciy ñaaw. Mhm. Euh, moo tax ni ñu indee Anta Babacar Ngom mu jàll ñun tamit am nañu droit poser wu euh, des questions mooy Anta Babacar Ngom jàllam daf ñoo jaaxal ñi doon nguru ngurumee ñi doon laaj ndax Anta Babacar Ngom fan la féete exactement mhm. fii nag lañ ko ko war a laajee Anta Babacar ak keneen ku mel ni Anta Babacar Ngom professeur Daouda Ndiaye mhm. euh, des des de des jeunes yoo xam ne nii ñu ngi ci suuf ñu ngi leen di bàyyi ñuy jàll ci parrainage yi mhm. war a nekk ci kandidaa ëllëg bu ñu ñëwee ci askan wi mhm. ku ñu jàkkaarloo ci askan wi nañu am sagoy laaj leen ñoom fan la ñu bokk exactement maanaam euh, bis bu seen euh, bu ñu waxee ne ne ne ne élection yii kat euh, euh, diw ak diw ak diw ñooy dem. ñooy candidat yu ñu retenir. yu ñu retenir mhm. ñoom même su fekkee dañuy dem. Mhm. Euh, candidaté mhm. bu ñu demee ci première tour. maara day taal bëgg ñoo egg sax deuxième tour. bu ñu yàlla defoon ñu egg ci deuxième tour. ñoom kon kan la ñuy soutenir. te loolu il faut ñu xamal ko askanu Sénégal. il faut ñu wax ñoom fan la ñu féete exactement. bu ñu mbubboo rek. na bu leen sénégalee yi topp ak mouvance bi ñu topp noonu. Mhm. di di di di campagne di campagne te kenn xamul exactement fan la ñu féete. Mhm. ndax li Anta baaba Babacar Ngom soo ko waxee ñu ne da ngaa soxor mais ni mu def ba dajale ay parrainage euh, Mimi mënu ko faa am moom ñu ne ko euh, ëppal na 44000 et quelques yi ñu ko doon laaj dem na ba 45000. ma ne la xel da ci tey. te Anta amul base politique. amul base politique koo xam ne nii la 5 ans yii ñu génn depuis 2019 kenn xamu ko. xam nañu ne jàng na xam nañu ne papaam euh, ci zéro la commencé egg ci ci mille mais nag papaam du moom. Mhm. nañ waxante dëgg. Mhm. te it papaam politigul woon. Mhm. même su fekkee ku ñu xam la euh, Babacar Ngom Sedima ku ñu xam la euh, politigul xam nañu aussi que jege ñaale ci information yi ñu am. jege ñaale président Abdou Macky Sall la et tout donc c' est à revoir le cas de Anta Babacar Ngom c' est à revoir. ay jigéen lañu mais nag fi mu nekk nii dañoo toll ci ubbi xel yi. dañoo toll ci wax. ak askan wi dëgg dañoo toll mhm. ci jëflanteeg ñoom dëgg goo xam ne ni tey jii ci la ñu mën a wékku mhm. euh, pour mën a euh, waxtaane li nga xam ne tey ji moom mooy élection yi waaye itam campagne électorale yi mën a yaatu mhm. incha allah rabbi incha allah d' accord euh, ma bëgg ñu taxaw foofu ba léegi coro parce que man ba tey nga baal ma rek parce que le cas de Mamadou Ibra Kane le journaliste Mamadou Ibra Kane gis nañu son cas même su fekkonte ne tey jii teelul wax ne Amadou Ba lay jàppale ji ñu xamoon ne kat ci ñi Euh, président Macky Sall ngembaale woon la. Mm-hmm. ci ñi ñëw pour dooleel parrainage la. Mm-hmm. mais tam ñi ñëw pour euh, euh, yokk doole benn bokk yaakaar la. Mm-hmm. su fekkonte ne bàyyi nañ ko mu jàll parrainage comme nii rek lay demee doo xam exactement ci kan la. bokk doo xam fan la féete dangay dem nag am ñenn ci askan wi ñoo xam ne. gëlëm da leen di jàpp ñu ñëw voteel ko. wala sax ñu ñëw ànd ak moom. moom mu pare dem yàkkali ko njiitu réew mi comme ni mu ko defee wala mu yàkkal ko Amadou Ba. su boobaa mbetteel dañu day am rek noonu lay demee. tax ma ne il faut ñuy ñuy ñuy poser des questions. Mhm. candidats yi. Mhm. il faut te actuellement comme ni ñu ko waxee li tax euh, géew géew politique gi yàqu. Mhm. bokk na ci ñu dem ci ay veille veu élection yoo xam ne. kenn kenn kenn sañ ta toog wala sax benn candidat amul dayoo dem toog ci ci ci plateau yi ngir wax lan nga bëgg. ngir dem ci biir askan wi ngir wax lan nga bëgg. diggante fii ak parrainage yi yaakaar naa kenn mënu fee xam Anta Babacar Ngom mais nag ñun ñi nga xam yàlla ñoo séddee ñu wax. ak ñuy mm-hmm. dinañ dawal suñu xel te dinañ ci wax ak askan wi nga xam ne moom lañ ci xalaat. incha allah Aliou Dieng d' accord ma bëggoon ñu taxaw foofu Anta parce que kii Coro. Euh, uh-huh. parce que man dafa am lu ma xaw a jaaxal ci li nga xam ne moom mooy ni ñuy seggee lii di parrainage yi li ma jaaxal mooy dañuy xool ku njëkk déposé presque yaa ngi ci fin ba pour ñu woo la. Mm-hmm. am ñu ne est ce que nekkul ne dañu topp ordre alphabétique bi maanaam ABCD tegle ko dem mais est ce que bu fekkente ne tey dañu bëgg a topp ordre alphabétique bi ci lu jëm ci wàllum convoqué député yi est convoqué kii lu jëm ci wàllu convoqué les candidats est-ce que waruñ ko woon njëkkee également ci dépôt bi ñu ne ñi seen tur tàmbalee A nañ déposé ñu tàmbalee B ñu tegu ci bu ko defee aussi bés bu ñuy segg tam ñu mën koo teglee noonu mais bu dee toppante ci wàllu ordre alphabétique bi ci ci dépôt bi ba pare bëgg ko toppee noonu ci ci ci ci saytu bi je pense que ne foofu aussi est nekkul benn piège boo xam ne gaa itam dañu ko tegal le candidats te xamuñu ko waaw piège bu bu mag la mhm. boo mais euh, euh, man euh, ni ki démb dama doon wax ne conseil constitutionnel. Mhm. ba tey ni muy demee. Mhm. ci saytu parrainage yi man damaa ne bëgguma parrainage yi. Mm-hmm. man euh, su doon man la en tant que un euh, pays de droit mm-hmm. dëkk boo xam ne dañuy wax ne démocratie dafa nërmeelu ñuy war koo jubbanti justice nërmeelu ñu war koo jubbanti mm-hmm. euh, war ñu fi woon teg parrainage mais ñoom ni ñu koy saytoo boobu ba tey ci diggante tirage bi ba tey man dama ne lu normal la ñoom ñu ñu ñu songé noonu parce que tamit comme ni ñu koy waxee xel mënta mat te comme dugal nañ leen ñoom ci guutawu parrainage te ñoom ñoo war a yor cëggal guy gi seen cëggal guy ñoom ci élection yi di mujj. Mhm. et donc euh, am na ci lu bari bari loo xam ne ay rëq-rëq la ak ay faute. Mhm. yoo xam ne nii mi ngi dem. Mhm. parce que boo leen nanguleeloo rek nangu leen aussi ni nga xam ne noonu nga gisee ñu jàllalee ko ñenn ci candidat yi. candidat yi nee naa la buñ ko dee xool jamono jii gis nañu euh, daanaka kandidaa wu yeewu askan wi mhm. daal di ci nekk ñoo xam ne nii euh, jàmbarte nañu ci wàllu jàllum parenage mhm. parce que booy lim euh, kii di Habib Sy lim Cheikh Tidiane Dièye lim Déthié Fall mhm. ngay lim keneen ak keneen koo xam ne ni xëy na ñoom ëllëg mën nañoo ànd bokkub géew daanaka da nga naan kon ñoom ñu ngi fexe pour jàll tey jii ñu ne la Bassirou Diomaye fay la mu war a mottali quatre mille et quelque la bareetul daanaka bu góorloo mën na ko mën na ko jàll mm-hmm. incha allah te xam naa dinañ ci gën a dikk ak Ousmane Diagne mm-hmm. dina ko jàll kon tu te dis que ñoom euh, euh, euh, daanaka seen ni ñu koy waxee seen tool ba ñu ji mm-hmm. fruits yi ñu ngi koy gis am na lu mu juróon am na ci loo xam